sur ce plateau bu leen tegati Wally Seck ndax on a trouvé mieux que lui plus talentueux que lui plus exceptionnel que lui qui dàqaway Wally Seck dàqaway Youssou Ndour mesdames et messieurs nous avons le plaisir de vous présenter Poobar gi Family Diagne Maxu Poobar guitaral musique ñu dem top c'est parti ra ra ra ra ra ra Xericocó, xericocó Xericocó, xericocó Yella bëggantel yella minantel kon ñaata séeri la plusieurs femmes. <laughs> su ma nekkoon monogame damay échoué. waaw plusieurs mënu ma leen compter sax. ay kon yow laa bëgg a téléphone doyuma. Ah. iPhone 4 iPhone 6 doyuma. Ah. jete waay. ak seen tàggaay yaram laa Galaxy S7 alal golo sa lex ba. dëgg la bàyyi di naxante. adiyama ni jaara dinke adiyama ni jaara dinke adiyama ni jaara dinke adiyama ah, ni jaara dinke lu nekk si man lu nekk si yéen ñun ñi même su ma koy vivre à distance moom la bëggante Adiyamani jara dinke Adiyamani jara dinke Paksi di faal faal ngege adam Pengejwe sali sagal ngama arum bedebe Bukara wenna Allah Allah jinjai wa duzes Modum bayi mbasu Ana per beka imbay Joran jai wenna Allah Khadija Zigi Zigi wenna Allah Adiyamani jara dinke Adiyamani jaradinke man yéen la e ba géej di fer. loolu mooy reprise bi quoi. man yéen la. nu ngeen ko gisee laa ko gisee nu ma ko gisee nu ngeen ko gisee. wari bɛ n bɛlo sanu tɛ bɛlo wari bɛ n bɛlo sanu ba géej di fer. sama loxo sama loxo sama Maya ma ko dama laa bëggoon laaj benn laaj. Atiya Mané jaara dinke. jërëjëf. oui waaw man dama bëggoon a xam. dama bëggoon a xam. parce que maa ngi gis Maku Poobar mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi wane boppam. arrêté waay. <laughs> ngi way ngi way ay way yu am solo. bon dama dama la dama ko bëgg a laaj ku koy jox transport <laughs> pour dem ci invitation yi koy kan ku koy jox transport kan moo géré loolu ci staff bi la wala nan la demee. c'est-à-dire que ñun Baye naa la man wax ma ñu li wax. Ah. ne naa moo je suis parti de zéro. Mhm. yéen gis ngeen sax si. ah Baye Fall daal. Mhm. man nee naa la su ma sëñ bi nee ma su ma dëkk maam Cheikh Ibra Fall dafa ma feeñ ni ma boo dëkkee si àll bi sax naa la defaral lépp on est parti de rien yow Sidi xam nga lépp mm-hmm. Sidi am na loo xam ne bëgguma koy wax Sidi mi Sidi daf may jox bii yan yéen yéen a ngi ma mën a woo du leen laaj dara parce que yéen yéen ma déplacement dafa laaj fay daal. non yéen du ma leen laaj dara mais da may jox transport Sidi daf may jox Sidi mënu ma compter lu may jox transport démb rek moo ci mujj. du ma leen mos a fayu nag mais yeneen télé yi xoolal ku ma ah. Ah, ah. bi y' a pas d'ami. dëgg la wala dëgg. yéen fajar. wala ma tëgg sama lal ñeneen ma ñëwul même su ma amul paas naa maajal ba ñëw. Mhm. mais ñeneen ñi xoolal xaalis rek. Mm-hmm. xaalis yi liggéey. yaa ngi wax léegi si sa biir wax ni fi nga jógee dafa sori est-ce que boobu léegi yaa ngi gis évolution si sa sa carrière mën ko woon xaar yow si si yaa ngi koy gis man maa ngi évolution dëgg ma la chaque jour c'est une école way naa ko si bichon sax ah. nit ki je crois que booy dem boo avancé wul je crois boo boo boo taxee boo boo delloo gën danga tax te boo taxawee bu baaxul. man de ku dugg sama oto mere ma. ndax man maxu poobar laay déglu sama oto. waaw dëgg la dama koy teg ñu naan ma tànjal te musique bii ma leen lii yéen xamu leen façon musique bi maxu moo ko créé musique maxu musique bi nu mu tudd. Euh, ban bi ngay créé yow. man euh, son son booy dóor afro la. afro parce que afro boo seetee. la musique euh, euh, Afrique la jógee. Mhm. même américain yi gars yi di ay complexe moom rek. musique bi jazz bi du fii la jógee suñu maam yi reggae bi fii la. Mhm. world music on parle de world music on parle on fait de tout. Mhm. man damay dóor ndaga sax. ndaga waaw ndax may mais attends mais attends question bi en fait dama yàgg rêvé posé ko Maxu. waaw xam nga Maxu man dama ko yàgg suivre ndax dama bëgg lu muy def. dama ko bëgg a laaj Maxu ndax musique bi dafa nekk loo xam ne da ngay dem jàngi ko wala loo xam ne en fait da nga judd sa famille màggaale ko ak moom. musique don la même guitare bi. macha allah Sidi Fall maa ngi rappelé grand théâtre bu mu fa ñëwee. dama doon débrouiller en guitare sax. waaw ba tey yaa ngi don la rek Kante moo ma daan wax ay affaire man j'étais un grand footballeur. Mhm. Kante moo ne bàyyil football. c'est quoi le rapport. eh ni ma musique. ni ma bis boo demee ba ñu may la guitare xam ne sa waxtu jouer guitare jot waaw Kanté benn voix moom ma dugal ci musique mm-hmm. moom mu indi Sali sax Sali mm-hmm. Sali ñu bare nag euh, maa ngi remercier Sénégalais yi Sali boo gisee ma fee nekk xoola Barakuda euh, ay Barakuda kii ñëw na fekk ma fa mm-hmm. Sali du moom ma mu fa tey mais laaqukaay la xam nga da ngay gis ni Dakar fii Dakar laa pay ay fans sama fans yëpp Dakar la sincèrement Dakar su ma fi ñëwee day mais xam nga nit da ngay am sutura artiste da ngay libre Sali sax dama fay nëbbu dama fay nëbbu loolu tax ma nekk Salif sax démb rek sama ay fans ñoom ñu eh, ay maa ngi remercier waa du ma def publicité waa waa NMA <laughs> euh, kii di Mor Sadi démb ba mu fi jógee Sidi mhm. foofu laa foofu laa añee sax mhm. ma ne sama doomu ndey Pape Sidi ma invité kii ku baax la daf may soutenir parce que ba mu jëndee sama album jëndalul sama album di remercier aussi euh, Dame Sadi di ak grand bi Macu bi kii woyoon. Euh, tonton Macu tonton Macu waaye naka dem waaw Macu dem faraaka fekk eh. waaw ak ñoom Sougou. Mhm. ak ñoom Amadou. Diakhoum gitaar bi dañ ko jënd. gitaar Fodé Cissokho moom moo ko jox. Ah. Fodé Cissokho boobu moo créé poobar. parce que en 99 ba ma jógee Gambie. maxu temps bi moom moo ko waaw waaw waaye da nga fi concert bi la ñu euh, directeur bañ a jox. salle mais keroog dama si kontaan parti bi yéene <laughs> fas yéene toog sali. kaar yi gars yi di orgue man dem wala wax ma sax accident mais nit ñi di soon di kii yàlla bu concert am. sama ñaan noonu Pape Sidi ni ma léegi xool Pape Sidi keroog ba nga ma waxee nii amatul kii Demba Diop gannaaw théâtre moom keroog ma kontaan dama ko ñaanoon daal. Mm-hmm. parce que booy mbuur bu naroon ñu tam ñu ni maxoo leen sacrifié ban sacrifice. Mm. gëmuñu sacrifice. d'accord wóyoo ñu dem ndaga après nga tegal ma ci salsa boobu noonu ñu jotoon bis bi. la loo xam ne du réaliser suñu émission. <laughs> kii parce que bu nijaay euh, <laughs> la. repris par pauvre patrimoine culturel ku mu neex da nga kenn moomu ko nag. nijaay nijaay. nijaay. ca nga ma del nijaay. ni góoru tey yomb na juboo del wax ni jaay ndax bii ban noot la bii dool doolal bi doolal ala poobar gi na juguma del wax ni jaayo ah ni góoru tey yomb na juboo nga ama del wax ni jaay del wax ni jaay Touba maa del wax ni jaay ñun góoru tey yomb na noo jóg ndax ay xale en tan que grand bu judd 1961 est-ce que di nga ma jamal salsa balaa mu jeex jonga ma del wax ni jaay baax waaw guanta pal monte boobu nga naa la ko bëgg ma wooyee cere la salsa ban fanandara lépp ci cere cere cere nen ɗon lekkal cere cere cere cere cere cere cere jamba cere cere cere nen ɗon battade amma cere fum amma talane amma Sëriñ Ndefal am na c'est cette note de musique exceptionnelle que nous quittons. On va se quitter jusqu'à demain. C'était dans la santé. faj na leen. bu ci defee mer. bu ci defee. ànd naa suukar ànd naa poobar gi. parce que da ngay àndul ndax du ñu ko jiw. Abdoulaye 2STV. ci réew mi ñu ko jiw. boo ko poobaree ba ma. production locale égale consommation locale. cere cere cere cere